asalaamaaleykum rahmatullah mbokk internet yi ñu ngi leen ñu nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax waaye tamit di ziar bu baax suñ mbokk bi ñu dajal mooy Souleymane waa boo nga gisee askan bi yëpp toll ñëpp génn toll nii rek du leen moo ko waral ñun dañuy jàkkonte ay jafe-jafe yu métti maanaam bu demee ba période bi toll fii rawatina période gàmmu bu demee ba gàmmu ñëw dañu am problème am ndox waaw daanaka suñ yaay yi suñ rakk yi suñ doom yi deux heures la ñuy jóg deux heures du ba six heures ba sept heures te duñ am ndox te loolu dafa metti te wallahi popula population Darou Salaam dañaa sonn ñun luñ soxla du ndox kese soxla nañ yoon yi baax soxla nañ canal soxla nañ sécurité bu doy soxla nañ tamit poste de santé mais wax dëgg dafa métti trop suñu yaay yi dañuy toog si robinet yi ba bugg a dee dañuy bay seen togg bi nekk si robinet bi dafa métti wax dëgg ñu ngi lancé gouvernement mu jàppale ñu si loolu rawatina nag maire bu ñu am fii muy Serigne Mboup waaw. parce que tey boo fi defee demande pour am robine lu ñu la laaj dafa bëri waaw am na loo xam ne askan bi bëri na fi lool waaye moyen bi demeewul noonu mais bu ñu bu ñu euh, euh, bi bu ñu mënoon jàppale. maire bu ñu noon jàppale ñoom ay robinet ah loolu dinañu doon gënal lool lool lool waaw. ñun waa Daaru Salaam ñu ngi leen di nuyu yéen di leen sant di leen gërëm yàgg nañ fi mosuñoo am lu mel nii kon buñ ko amee dañ koy kontaanee di leen sant di leen gërëm ñun nag ñu ngi amuñu ndox amuñu yoon bu ñu jaal bu tawee kër yi fees bu bu bu e, ñëwee ndox mu ñu root duñu ko am fu ñu naan duñu ko am ñun nag sonn nañ ku ñëw ànd ak ñun ñu fal la boo faloo fàtte ñu nag ñi ngi ñaan ñi nga xam ne ñooñu ñooñu ñooñu tane ñu dimbale ñu ñu am ndox amuñu yoon amuñu ndox ñu feebaree mënu ñoo génn ñun tey bu ñu feebaree amuñu yoon fu ñu jaar ñun tey bu ñu feebaree amuñu yoon fu ñu jaar suñuy doom amuñ fu ñu jaar dem foyi ku ci sa doom fowut ci sa biir néeg doo fo kon nag ñun sonn nañ dañuy ñaan ndimbal ndimbal la ñu bëgg ndimbal la bëgg ndimbal la bëgg waaw waaw salaamaaleykum sama doom maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ñun de ndox lañ bëgg koñ bi manqué na ndox trop maa ngi nii bi ma jogee marché ba léegi sanguma maa ngi nii ndox lañ doon lijjanti suba ba tey mënumaa fexe ba sangu soxla nañ ndox ku ñu bugg a ndox rek lañ dimbale ci ndox lañ bugg sonn nañ ci root gudd ak bëccëg ñu ngi ci robinet yi robinet yi na ngeen ñu dimbale ndox ndox rek lañ soxla. asalaamaaleykum mbokki Nangaan asalaamaaleykum mbokki Daaru Salaam ñu ngi ñëw ci suñ ñàkkum ndox mii nag la ñuy wax ndox mi sonn nañ sonn nañ ku ñu mën a dimbale ñu jël sonn nañ tuñ guddi nelawatuñ bëccëg ci robinet yi la ñuy yendu fi la ñuy fanaan mënuñoo fexe ba am ndox bu gàmmu jotee ci la ñuy gën a ñàkkat ndox comme nii robine robinet may dañ koy dégg waaye duñ ko gis rawatina suñu robinet la ñuy tëj dem yóbbul leen ko loolu ñaaw na dañuy tëj suñu robine dem yóbbul leen ko ñu ne ci salte bi ñu ngi xucc ci salte bi ñu ngi ci yooyu ñu ngi ci ndox yi te ñun képp koo xamante ne yaa ngi ci ngi politicien ñu ngi ànd ak yow ànd nañoo ku waaye bu ñu xoolee suñ xale yaa ngi ne dañuy taxawaalu amuñ fuñ jàngee suñ bëggee suñ doom jàng dañ leen di génnee dileen leen yóbbu ay ndakaaru di leen yóbbu ay fu ne pour suñ xale yi mën a jàng sonn nañ amuñu yoon amuñ fuñ foyee nañ ñu dimbale ci ndox képp ku jóg ñu ànd ak yow leen di nuyu di leen sant di leen ñaan dimbal ndax ñun waa Daaru Salaam sonnoon nañ torop ci ñàkkam ndox mi moo ñu sonal torop suñ gone yi ci mbedd mi la ñuy fanaan di root duñ am ndox ci la ñuy indu di root duñu am ndox maire yi sax dañuy root guddi ak bëccëg ndax bëgg a dimbale suñ goro yi benn kër daanaka amul robinet li fi am ay robinet bariwut sonn nañ ba ca kanam yàlla nañ ñu dimbale nañ ñu dimbale ci ndox sono nañ de ndox rek mooy suñ problème asalaamaaleykum mbokk internet yi maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur sa sant man la Binta Diallo ñu gën maa xam ci Binta Mbay ma nekk bàjjanu gox fii ci quartier Daaru Salaam di jaajëfal euh, suñu jeune bi nekk si koñ bi di Souleymane yore sit bi ñuy wax clique ñëwoon fi tey xool ci sama dëkkandoor yi si waa quartier bi si coono bi ñuy am ci ndox dëgg yàlla ndox moom manqué na fi trop trop trop sonn nañ trop ci ndox tamit lépp doo xamante ni wax nañ la ko rek lu ko raw mu ngi fi koñ quartier bi bëriwul ay robinet quartier bi pour nga dugal fi robinet problème la parce que ñu ngi ñu ngi doon xaar nag monsieur le maire si lotissement bi pour ñu kër yi mun a am kayit pour ñu mën a dugal robine mais ba tey wax dëgg fa yàlla loolu tamit sotteegul ñun gàmmo bu jotee robinet yi nga xam dañ koy maye sax ñun waa Daaru Salaam duñ ci am te du tey suñu ndox dañ koy dagg dañuy sonn jigéen ñi dañuy sonn 4 heures la ñuy nekk ci robinet yi ba ay 10 heures 11 heures dem marché sax dañuy am problème am ñoo xam sax dañuy fanaan ci robinet yi loolu nag metti na wax dëgg yàlla pour nga boole ko ak sa liggéeyu kër waaw metti na trop li ñuy xaar si autorité moo ñu dimbale ñu lotissement bi ñu waxoon ñu mottali ko kayitu kër yi génn pour waa quartier bi mën a dugal parce que fii pour nga am fi robinet tout à fait benn problème la boo xamante ne problème bu métti la pour nga am fi robinet waaw ñun xam ne nag yàlla may na ma comme man mi am naa robinet kër damay maye ndox maye ndox maye ndox ba kon c'est pas possible doo comprendre parce que da ngay gis jigéen ñi sonn lool ci ci root bi waaw bu ñu jàppale woon daal lotissement bi ñu yeggale ko donte commencé nañ ko nag ñu yeggale ko kayit yi génn euh, ku si nekk mën a dugal robinet sa kër dëgg yàlla mën a noppale ko